danu leen a teg bëgg sëtoo ca Mbàkke sëtoo ca Mbàkke sëtoo ca Mbàkke ak ca kon ak ca kon ak ca awa sanam teg danu leen a teg borom daaru borom daaru bëgg sëtoo ca Mbàkke sëtoo ca Mbàkke sëtoo ca Mbàkke ak ca kon ak ca kon ak ca awa sanam teg danu leen ma nga sa cocca Mbàkke ak ca kot ak ca kot awa gannaaw jom gënu leen a dégg ma nga sa cocca Mbàkke ak ca kot ak ca kot awa gannaaw jom gënu leen a dégg foppa raxam suku man nga cerno foppa raxam suku man nga cerno don Musa Musa mooy Aaron mooy Aaron sa ñaan nga nangoon na doxal leen seen yoon